maa ngi leen di siyaare. tey ñu gis nga daal di defaat ci beneen acte noble muy lan ñëw jàppale xale yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci village SOS des enfants jox leen li nga xam ne moom moo di ay kids jàppale leen ci ay a lan moo waral acte bi ak sa relation ñoom. waaw avant tout maa ngi sant yàlla di julli ci Yonent bi di ñaanal réew mi jàmm di ñaanal jàmm yéen ñi ñëw fekkee lii di sant yàlla bu baax a baax ci bi ma boolee ak jëmm ji. muy Umar Mamour et sa famille sa petite sa chérie Yolanda ah elle est brave elle est elle est incontournable merci beaucoup maa ngi sant yàlla baax bi ma boole ak ñoom parce que dama doon dem États-Unis pour liggéey bi ma demee ci sama wàllu bopp moo ma yëkkati woon yàlla dogal ma dem gisante ak ñoom waxtaan ak ñoom ah ma xam ne buntu am na pour sama réew ma dagg li may def ñibbisi ñëw accueillir leen pour ànd ak ñoom ñu jàppale réew mi c'est très très important euh, xëy na du chaque fois lay am moyen pour def waaye su ma gisee ñu mën a def damay daw mu jëli leen loolu moo am solo et que euh, bëgguma sax ñi may remercier dama bëgg rek ñu ñaanal leen jàmm ñoom ñoom ñi nga xamante ni gannaaw yàlla ñoo jël seen alal mhm. def ko ci ba mu egsi ba fii ah ci sama kóol te rek ci sama làmmiñ rek sama làmmiñ bu néew bi rek ah nañ leen ñaanal ñu gudd fan te wér ah, man fii suma kër la SOS suma kër la ànd naa fekk ku ne indi naa fi ku ne donc nañ ñaan yàlla rek ah, ah, lépp lu ñuy ci rek ah mu jóge partout dans le monde entier ñu ñëw pour jàppale rek parce que euh, euh, mu neex mu naqari soxla nañ ko bu ñu gis comme li ko Youssou waxee fii rafet rek habillage bi rafet ñu foog ne wuñu ko man dama fiy ñëw xam naa ne si woon nañ ko suñ fi jógee ñu ngi dem ci ay daara ah ñu ngi dem ci ay école war nañ dem euh, ci kanam tuuti sangal kam mhm. ay daara bu buñ fa jógee war nañ dem Gambie ndax Gambie tamit man maay euh, comme yàlla dogal na man maay ambassadeur SOS mhm. Gambie dafa am SOS te Gambie sama réew la mhm. donc il faut man su may su may def dara muy dugg Sénégal ma bàyyi leen ci xel trop vraiment man euh, li ma ci mën a tënk daal mooy ñu ne le mérite appartient à celui ki commence ah le mérite leur appartient c'est eux c'est eux vraiment j'en suis j'en suis trop fier kontaan naa ci trop trop trop trop man nag moom ah lii moom ma war génn sama réew dem fekk yeneen réew fexe nu ma wutee indi ci réew mi loolu moo ci am solo incha allah. ñu nekk ci yeneen tàllal la yeneen partenaire yu ci mel ni que waa Afrique Kids bi wala. waaw pourquoi pas pourquoi pas parce que Afrique kiis dañ ma fekk ci li ma ne ba tax moom ma leen convaincre ñu ànd ñëw. donc euh, su suma ci woon dox amaana heure bi mi ma fekk États-Unis parce que sama manager mi ngi États-Unis mhm. mais dama dog li may def ñëw donc euh, euh, dañ ma ci fekk mhm. donc lu ma mën a waaye mën a ubbi bunt ma demee gis leen bu ñu war a ñëw pour jàppale réew mi xaaruma ci dara buñ ñëwee naa leen dëkkal fi ñu war a dëkk mhm. toppatoo leen ñu dëkk ci hôtel yu baax. ñu ñu ñu ñu def li ñuy def bu ñu paree ñibbi. pourquoi Wally porter le combat waaw mais parce que am démb passé wala lu mën benn vécu bu mu mës am ak xale yi wala dafa leen yërmande bu muy sentir waaw man j'adore les enfants et puis euh, yàlla dafa dogal man wax naa suma maam moo ma yar ah, te yàgg naa ci yàgg naa ci mbedd yàgg naa dem ci mbedd jaar naa daara def naa lu bari. wax naa ko tout le temps promotion sax jaay naa ko. Mm-hmm. Ah, def naa lu ne xëy na yàlla moom ma jaarale fii rek ah donc euh, ni ma ñëwee di lañ jàppale tey mun na naa fi nekk tey. am na ci koo xamante ni fii la jógee fii lañ ko tette ba mu nekk photographe photo grand photographe. ana waaw c'est grand acteur kii SAS <laughs> gii la jógee. SAS la yaroo fii lañ ko yaree fii lañ ko tette mm-hmm. ah, Pathé seen il pare que moom tamit fii la nekkoon donc xam nga jàppale ñii mooy jàppale futur bi te vraiment buur y a des bénévoles ici à Dakar ku ci mel ni euh, euh, xippil xol benn association la boo xamante ni kilifa gi nga xamante ni mi ngi leen di jàppale suma suma collègue la suma xarit la mhm. suma waay la muy PDG mi ngi def yu mel nii ah am na yeneen femmes yu brave yu fi nekk yu def euh, social mhm. je vais rek juste citer Clara day def lu baax ah sama jabar bi ci kër ga mi ngi koy def donc bu ñëpp jógee rek tàllal jàpp def ah dina baax sama yaay ma wax la pour pour mu pour mu leer rek euh, hôpital Fann boo ñëwee ne man la kii na yónni dañ lay accueillir yóbbu la parce que day xëy ay dafa am yoo xamante ne mooy dem sang néew moo leen di sang moo leen di defar moo jënd bàmmeel yi moo leen di suul moo leen di dëcc te xamu leen xam nga li may wax ci presse baa ngi koy jël. Mm-hmm. Euh, hôpital yi xam hôpital yi xam nañ li may wax prison yi xam nañ li may wax donc du loo xamante ni dama koy forcer. Mm-hmm. dafa rek naturel dafa rek naturel ñi ñaan yàlla musal ñu ci cat seytaane musiba ak balaa te feebar bi jógee fi nu mu gën a gaaw ñu ko ci mois de décembre te ku xam mois de décembre wax Noël des enfants hmm? est-ce que Wally Ballago Seck nga xam ne def na ko euh, village des enfants mu ngi waajalaat leneen ci xale yi beneen question bi mooy que ne lan ngay dénk sa naataangoo yi nga xam ne yéen a bokk showbiz bi nga xam ne dëgg la xëy na ñu ngi def social mais dañuy fàtte xale yi waaw léegi euh, pour lu jëm côté nawel des enfants loolu du sama décision parce que réew mi dafa am nu muy doxee donc je peux pas euh, euh, franchir les règles yi nga xamante ni dañ koy teg xamaguma yan règle mooy dox fii balaa boobu su fekkee possible na dinañ ko def balaa may répondre sa deuxième question damay gërëm waa SOS ah suñu sama yaay ah. ah, ah maire SOS yi nger xale yi. en plus directrice bi maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax ah di gërëm ñi ma fekk ñëpp. parce que c'est très très important saa bu ñëwee ñu accueillir ñu te ñoom ñu sonn leen ci xale yi. deuxième question bi mooy euh, àdduna fi mu toll nit moom am na ñoo xamante ni lu ñu laal rek mu fës waaye samay naataango ñun ñëpp ay def kat lu baax lañu génnewuma ci kenn. ki ci gën a ndaw di musique ba ci samay papa ñoom ñëpp ay defkatu lu baax lañ am na ñoo xamante nag ñemewuñu ñu ngi def dara ci suuf xëy na dañuy bañ ñu ne leen xam nga Sénégal dañoo gaaw ci euh, pourquoi nga koy wane ka Sambalaar pourquoi léeg li xëy na loolu la ñuy ragal mais ay defkatu lu baax lañ ñoom ñëpp ma ni bàyyiwuma kenn sama mbokk waykat ay defkatu lu baax lañu te ñu ngi koy def xëy na dañuy ragal man man li ñuy li ñuy ragal man ragaluma ko man ragaluma ko ma xas ragaluma ko ma wax nii parce que maa koy bëgg miis daal xëy na loolu la ñuy ragal rek mais nag lu baax moom dang nga koy wane ngir ñi ñi koy gis am fitu def ko parce que euh, ñun bu ñu lu bon wala lu ñuy sikkee ñoom ñoo dañ koy fësal. Mm-hmm. kon kay bu ñu amee lu baax lu ñu war a def pour ko wan ko war yoon bu yoon bi ñun ñi mm-hmm. nañ ko def rek. jërëjëf waaw ah, ah? lan la dencal Sénégal pour mois de décembre bi waaw waaw fin d'année bi am nay am nay cadeau am nay cadeau am na yoo xam ay surprise yoo xamante ni. waaw am na live bu war a génn. live boo xamante ni war na génn incha allah. Mm-hmm. mais c'est diamétralement opposé ak sama album. waaw. d'accord ci live beeg album bi xam nga gars yi dañoo bëgg live. <laughs> il préfère il préfère ñëw jël seen portable. di ko filmer après sotti ko def ko seen CD wala seen clé di ko déglu. léegi je je préfère ma defal leen live rek may leen ko. ñu gis ne jamono ji Wally Ballago Seck macha allah